you sa mistake stylé naka la bàyyi yaay ci boobu style dynamique artiste directeur artiste en même temps producteur en même temps chargé de communication ci label bi ngay ñëw naa li ci des ay détails la yoo xam ne après plus que ñu a a yow cristal damay ñaar ci nen bi laaj nga ma question boo xam ne daanaka def naa pas mal d'émission mais dama ko ciy laaj bu bëri quoi tey nga laaj ma ko ci cristal dynamique défi la défi la quoi lan mooy défi bi maanaam tey à un moment donné cristal boo ko déggee mooy lumière xam boo ko déggee mooy li nga xamante ni day rester constant quoi te dans la vie pour nga être pour nekk benn lumière bu constant faaw nga dynamique tamit. dëgg dëgg dëgg mooy benn défi la boo xamante ne yow doo koy jiital comme am pour mën a rester parce que boo bëggee nekk yow ne yow yaay cristal dynamique lumière boo xamante ne da nga war a rester constant faw nga dynamique ci lépp faw nga rayante défi boobu nag quoi à chaque fois ngay tëdd comme américain bi muy amee réew comme am muy nekk charge ci kaw boppam bi yow chaque jour cristal dynamique benn défi lay doon ci yow défi succès lay doon parce que lumière boobu da bëgg a atteindre quoi vraiment. même bu dul sële ah. vraiment ça ne Uh, depuis quand, depuis quand nga nekk ci game depuis quand. yow sa saa yi laaj nga ma question bu doy waar boo xamante ni je me rappelle daan naa taxaw ay 10 ans ci ginnaaw doon wax gars yi année bi ma commencé rap naan ma yow suñu old school dañoo ma woon fii quoi je me rappelle 98 dañ ñëw Dakar Kobon bi parce que maire bi agent d' état civil la Thiès lañ jógee ñëw Dakar Kobon bi 98 boobu ba ñuy wàccee bagage yi pour dugg gaal yi bu ñu dëkk à ci à Thiaroye ñoom o wooye woon jamono bi am na benn grand bu fa nekkoon léegi responsable la semence sax ñoo booy rap parce que man dama judd rek commencé ko di rap mais 2001 laa teg benn groupe boo xam te ni tuub xaaj bi xaw la ko tuddee en 2003 ñu changé ko def ko Sebal Char Sebal Char en personne quoi comme maa mën naa ne depuis 2003 daal maa ngi ci quoi loolu c'était ay vingtaine d'années la suñu jóg si moom dama judd rek def musique quoi en gros. dégg ngeen kii Saalum Dieng mais bon yàgg na ci nekk na ci ba tey mu ngi ca yow lan moo la lan moo la xiir ba nga dugg ci musique quoi ci genn bi. yéemaan au début amuñu woon objectif am ah. comme da ngay gis benn xale boo xam ne day nekk xale rek yaayam nangoo bal bi mu jooy moment boobu munoo wax ne dafa bëgg mooy football mais amul woon objectif quoi kon rab bañ ko doon def on était inconscient mais plus que ñuy màgg ko nga. Euh, charge yi di am comprendre nga état d'esprit yi di di changer yow da ngay da ngay gis ay euh, affaires yoo xam te ni peut-être ay injustice la yow da nga ndekete man li ma tànnoon comprendre nga moom moom nga war a mën a seetlu après nag ngay indi engagement mais rab li nga xam te ni moom la ci dugal au début sax man jëlee boole xaw ma ko woon mais plus que ñuy avancé may gis ay affaire dama ne woon c' est un moyen boo xam te ni pour nga mën a dénoncer quoi xam c' est un moyen pour Sénégal Maître métti di gars parfois ils ont besoin peut-être d'un bel détresse actuellement plus que ñu actuellement mën na ñaar quoi dénoncer ñaar pour stress quoi parce que musique là quoi comprendre de collectionner les paroles qui sont agréables à l'oreille comme on a l'habitude de le dire comprendre nga hormis ça aussi dafa dénoncer quoi dafa dénoncer quoi mën naa ne ñaari affaire yooyu ñoom ñoo tax taxaw quoi c'est ça. mais yow finalement bëgg naa xam ne da nga décidé quoi da nga décidé. da nga da nga da nga pare quoi da nga pare ci. Euh, mu lu am solo dans la vie muy assumer assumer dans la vie lépp def nga def ko avec le temps ba gars yi gis boo ko assumer wul nag yow da ngay nekk ci que gars yi bët boobu la lay xolé mais yow le fait que xolé woo sa bobu bët bobu rek day tax nga dugg ci à moitié quoi parfois ñu invité le ben rang par exemple comment parce que dafa assumer métier bi en tant que quel wala nga gis benn gel boo xam day def mécanicien daf ko assumer parce que pour nga compléter dans la vie da ngay assumer déjà li ngay def quoi comprendre nga assumer bobu nak mo ñëw comprendre nga nga assumer nek artiste ba lepp li ngay def à un moment donné artiste nga ci gis art nga ci gis quoi comprendre nga kër Saar sa yu biir wax maa ngi dégg assuré assuré mais wax nga yaa ngi tuddee jiw yi déglu ñu assuré mais yow est-ce que yow yow assuré nga quoi yaa ngi assuré te xam nga jéem nañu demee. dëgg la te xam nga lu ci nekk. kon position nga nekkee. bon assumé boo léggee assumé bi xam nga dafa am lu naan état d'esprit léegi sàmm social boobu ma doon teg comme xam nga à un moment donné. day son boobu ma def noonu parce que dama toog nekk jeune xool ni jeune bi ñuy waxtaan ba fois ñu dugg ci ay débat yoo xam ne ñu ñëpp ñooy bokk benn position ma toog ay mën naa ne ay ay bés ay bés ay bés mën naa ne sax ay at affaire boobu di noyoo ne sama maay may loolu naa ko génne mu nekk sous forme de comprimé jeune boo xamante ni peut-être yaa ngi toll foofu comprendre nga boo déggee son boobu dina mën a nekk sa benn comprimé bu lay bu lay faj quoi son bi mooy tudd état d'esprit a moo moo nekkoon raison bi tax sax son boobu ñu sélection pré ma bokkoon ci pré présélection wu Flow bi quoi année bi comprendre nga. mais bëgg naa xam wala nga leeral ko gars yi lan mooy sa projet ak looy waaj yan projet ngay waaj. vraiment eh, eh, te question bu am solo la ah damay lëkkoon bi tuuti rek soog a ñëwaale projet boobu quoi. parce que man j'ai été mën naa ko wax quoi nekk naa nit koo xamante ni bon joxoon nañ ma benn cër boo xamante ni rap moom ma ko mayoon autant parce que caabe nga nekk fa nekk rappeur gars yi nangu la dèjà loolu liggéey moo la koy may quoi. ma dem ba ci biir comme que at bi dem na man defal naa ci ma jéem a xoolaat leneen loo xamante ni mën naa a a def commencé dugg ci way bi te ba ma commencé way tamit j'ai fi j'ai fait des featuring comme genre ay ñoom Thione Seck Thione Seck def ñoom moom featuring euh,

chinois la mais wàccaay moy préparation moy finition léegi wàccaay def naa ci beneen bi tudd wàccaay def naa ci beneen tuddu tudd aadama ah, comprendre projet bobu daal actuellement moo ci ne te projet bobu tamit dañ koy waaj d'une manière boo xam manière professionnelle parce que dañuy dem inshallah allah musée de l'IFAN def fa open press bu ñu jógee foofu aussi

mais moom kese mooy def 32 000 personnes en live euh, Instagram moom kese Wally Seck sax amul loolu malgré bañ nañ ko mais imposé la na boppam Adamo boo xoolee paroles yi ma ci wax contenu bi waxuma ci tagguma ci Adamo quand même quoi comment mais contenu bi ma ngi ciy wax waxi reewande foofu damay wax même boo leen ma boo enchanté wu li wax mais talent bi par force dama leen koy imposer même boo leen ko bëggul par force dina am ay nombre de vues ni ñuy mën a comparer nombre de vues yi Adamo di am si si live bi quoi. mais Guirssar mais Guirssar yow lu la gën a lu la gën a métti ci rap game bi ak lu la ci gën a neex quoi. vraiment. <laughs> li ma gën a neex laay njëkk a wax parce que man man sama père comme du tawee la dafa strict xam moo tax doomam yëpp comme damay am habitude di ko wax fépp fu ñu mën a fréquenté dañ fay faj quoi parce que am na benn éducation bu mu koy parce que loolu mooy héritage bu xaalis bi ñu lay jox na éducation bi ñu lay jox la kanam quoi. léegi dafa ça a été dur pour ñu accepter la yow carrière musique bi nga def parce que musicien yooyu yam dañuy too xam nga xam nga mais li ma gën a neex mooy avec le temps dem ba sama père nekk sama fan si numéro un di ma support ci lépp di déglu samay son boo ko fekkee matin bi soir sa benn son bu mu bëgg bi tudd Alaaji quoi te woon dafa correspondre moment boobu ndeysaan mu dem màgg son bi warul génn muy àllaaji sûrement dafa foo woon sax moom laa ci la la kii quoi mais son la boo xam te ni moom daf koy diñ li ma gën a métti sama carrière nag lenn la quoi te loolu ndeysaan lu ma métti la parce que dafa amoon benn moment boo xam te ni euh, peut-être net bi amul woon yenn doole yi quoi xamoon bi net bi amul woon yenn doole yi parce que pour nga siiw rajo yi teg la benn Lamay Seen boobu maa ngi benn groupe boo xamante ni man maa ko tegoon en personne organisé ko groupe boobu mooy tuddoon New Fashion commande léegi ñu def suñu seede dem wax ko yóbbul Paco Zik FM damay tudd Tournagan wax ko yóbbul Paco Zik FM ñu dem takkale suñuy moyen ba dem mu ne maanaam paas paas watubi sax dañ ko koloo koloo mën naa wax quoi ban dem demee wat ko seede bi ne ko waa ñun de ay artistes wala taal yi ñu nga ñuy teg ñu des biir quoi yaa ngi dégg mu ni temps yi teguma underground daal temps yi bi ma teg underground comprendre nga ñu ne waa garaawul quoi ñu jékki-jékki toogaat lu xaw a yàgg ñu demaat fa parce que moment boobu tamit jaaroon ci émission moom comme nga jàpp ci Vibe rajo la quoi comprendre nga ñu demaat si moom aussi comprendre nga mu teewaat suñu séeréer bi xas ñu xas ñu séeréer bi c'est pas présentable genre yooyu demal dem leen ngeen defar ko boobu je me rappelle ay 14 heures moo jot ñu dugg ci cyber yi suñu xaalis bu ñu waxoon paas dafa ko seedee ba mu rafet ñu ñëw jox ñu ñëwaat laajte ko mu ñëw xam ko lu yàgg ba mu wàcc. mu ko waa grand bi defal nañ affaire bi affaire baa ngi ok naa ko teg ñu waaw. dañoo jox deux pas man on dirait que dañ ne ba ma geesoo ak li muy jëlee seedee bi di ko dugal ci pôle mbalit bi. benn la quoi comment nga léegi man dama di que man man ndeysaan nga nekk artiste comment nga di rayante tey bu doon États-Unis ñoom ñooy média bi ñooy daw derrière artistes yi mais fii Sénégal da ngay nekk artiste am talent comment nga. même sax moom sax day toog comment ne ah booy bi neexuma mais dafa am talent comment nga am talent bi wax si jàpp mais genre raak yooyu ñu lay raak mooy indi lay ndeysaan ngay dégg-dégg booy bi ak mënoon football mais amul tey euh, ñi ñi nànk sport ñu ko jàppale booy bi ak a mënoon musique te parce que amul média boo xam dañ ko taxaw ba nii may wax ak yow nii gars yi pour pour ñu teg la wala teg la ci yenn affaires yi faaw nga fay leen maam affaire yu yu xaw a ñàng yooyu quoi loolu moom bokk na li nga xamante ni moom gën a metti sama carrière quoi a dee ñaan paas koloo koloo ñu diwaat te xam nga ne yow mission bi nga taxoon ay ay yeus comprendre wala ay jour ngay dem jaabante mujjul na lu ma gën a metti ci carrière bi et tout quoi c'est ça koy tëj fii faa faa nga may ñu dara faa nga may gars yi dara quoi. mayal gars yi dara li nga xamante ne. yaa ma gënal loolu quoi. yeemaan yeemaan yeemaan yeemaan. balaa muy ñëw nag ci côté freestyle bi may maye da wax gars yi rek juste que am na benn label bu tudd Equivocal xam nga bu nekk sur la route de Malika plus précisément tamit bon ñu am ay artistes yoo xam te ne ñu ngi liggéey ak ñoom wala def tamit programme

comme sama gel boo amee mauvaise haleine hmm, hmm, hmm. soo sa nga réclame ci yéen ak ndox bu gën a pire ndoxu kiiran yi sa seey nelaw yaa ko tal moo tax nga xalaat vie de rêve désormais ay cours lay xeexee savoir est une arme sa life dañuy étoile 770 étoiles xelu 1 million tera ak bless me Madeftaken en No fake juju kungen ik daarom Wat mij jullie is een chok Je zei maar gaat ook alle sok Wat hier is, de lens is aan me A gun, wat kom ik kan Ademo, ademo, ademo Ademo, ademo, ademo Ademo, ademo, ademo Dem lippen around nach my ademo Hoe moet je nu weer zat je chin Nimetekwa msamapapo ayo Ewe sabi stuma kwa nyao Bune majama chila lepo khan Sama bupilu si sa chok Tenga zere yo sa pong Bayi sama kasa zate Fek na delu mongi talk Sa kere ma atapa bu mer bi dafay Kenn du ko définir Ay jaga jaga ay fas la fi gis Ma tax magik sama xiir Sa il est galant il est mignon Fetchel ma ginte walin Ma je tere dignon Tudu espace kon Rando ma defe menopause Munatul aku sebene ide Kila ma sabi ko attack your life Chicken fight no def kenn de du ma café naan je même pas tabasa duñu ko la xel mu tilim te yow duñu bale moo tax je fais que di saa naa leen sukki akaat pisama lay so naa leen yee susement kontaan nga tagg ma cristal kusuma bu la neexee su waa salu mais No noo ci man papa njaay noppalul te dalu bu dee reewande nga may jaay ne ñëpp laay um noo fekk du ñu fu ngeen di taaram wax ma yow lu color song. Waarin is, lo lens is actief. Een gun,